waaw ab Ablaye Diop mm, secrétaire général daayira Muxaddamatul Xidma nekk itam ci coordination commission organisation bi nga xam ne mu ngi ci biir comité d' organisation bi Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadre jiite muy organiser Magalou Touba. commission organisation boobu nag euh, dafa am cahier de charge maanaam liggéey bu am solo boo xam ne moom lañ leen dénk ci màggal gi muy dalal gani tarixa yi kilifa yi diine yi nekk ci Sénégal ak association islamique yi yi nga xam dañuy màggal si ci turu sëriñ bi euh, ñoom la ñuy dalal di leen toppatoo dirub màggal gi lu jiitu màggal gi danañ leen yónnee ay invitation yoo xamante ni dana leen yëgal màggal gi waaye itam leeralaal leen ñëwin wi nga xam ne moom lañu bëgg ñu ñëwee ko bu ñu ñëwee tam danañ fekk ñu programme mbooleem tarixa yooyu seeni daluwaay xam nga daluwaay yi ñu am ñaari daluwaay la muy bi nga xam ne moo féete fii kër sëñ Touba gi nga xam ne moo nekk Touba mosquée nekk ci wetu jumaa ji ak kër sëñ Tuubaa gi nga xam ne moo nekk fële ca daarul mannaan euh, ñaari kër yooyu mën naa ne moo ëpp ci dal yi nga xamante ni ci la gan ñi dal loolu nag ñu ngi ko dénk mu xaddamatul xidma moo yor ak accueil hébergement bi maanaam mooy teeru gan ñi di leen dalal di nekk ak ñoom di leen toppatoo ba màggal gi jeex mboolem luñ soxlawoo ci ay activités itam moo xam ay conférence yi ñuy teew nga xam ne Rawdu Rayaahin mi ngi koy organiser daañ fexe ba Euh, ànd ak ñoom dem ci conférence yi moo xam ziar yi ñuy ziar yi xalif général de Mouride moo xam visite yi nga xam ne moom la ñuy def ci dëkk bi fu mel ne jumaay Touba wala yu mel noonu wala ziar yi itam danañ fexe ba ànd ak ñoom euh, euh, yóbbu leen ci barab yooyu ñu ziar ko def ko niñ ko niñ ko bëggee liggéey boobu nag liggéey la boo xamante ni Muxaddamatul Xidma depuis comité d'organisation sosu ba léegi daf ci taxaw jël ay membre yoo xam ne daf leen détaché fii ndax xam ngeen Moukhaddamatoul Khidma liggéey juma Touba ci moom la aju waaye foofa lu mat junni membre ña nga fa moo tax mu tànn ca ñooña nag benn équipe boo xam ne équipe de trente personnes lu mat fanweeri nit féetale leen fii ci commission organisation bi nga xam ne ñooy dalal gani euh, tarixa yooyu ak association islamique yi ko defee ñu wutal ko ay waxtu maanaam ñi nga xam ne dañuy monter ñëw di toppatoo gan ñi de huit heures à vingt heures bu ñooñu euh, vingt heures jotee ñooñu wàcc beneen équipe ñëw boo xamante ni mooy jël vingt ba huit ci beneen bi ñu ngi koy tàmbali ci 15 safar ba 19 safar 15 safar euh, ba 19 safar jour bi nga xam ne mooy jour cérémonie officielle bi ñoo ñu ànd ak gan ñi ba lépp loo xamante ni soxla woon nañ ko liggéey boobu nag ñu ngi ko ànd ak daayira wilaya nga xam ne ñoom ñoo yor lépp lu aju ci restauration bi maanaam di leen berndeel di leen toppatoo di liggéey bu am solo boo xamante ni dafa laaj nag ñu xam taxawaay boobu nga xam ne moom la ci daayira muxaddamatul xidma di di taxawee chaque année ci turu sëriñ Afia Bousso mi njiit li waaye nag ci kilifteefu sëriñ Bassirou Mbacke Abdou Abdul Xaadir mi nga xamante ni moom la sëriñ bi dénk màggal gi ci loxoom loola nag jumtukaay bu mu laaj rek danañ ko def ci wàllu informatiser ko ndax gis ngeen liste yi ngeen di gis ñu koy lim ci cérémonie officielle bi ci tarixa yi ak di ko lim ci conférence bu mag bi nga xam ne moom la Rawdu Rayaahin def loolu lépp Moukhaddamatoul Khidma moo koy liggéey bu jeexee danañ def benn rapport boo xam ne dana tënk liggéey boobu ci ñu xam ñaata délégation ñoo ñëw tari tarixa yooyu association islamique yi ci turu kan la ñu ñëw kan moo jiite délégation bi ñaatam nit la ba bu jeexee dañ xam ne nangami délégation ñëwoon na ci màggalug reen gi yu composé wu ci nangami nit ñii ñoo daloon fii ci kër gi di kër sëñ Touba gi ci Touba mosquée chambre yi ñu daloon euh, ak bis yi ñu fi nekk ak bis yi ñu dellu yooyu yëpp day figurer ci rapport boobu muy liggéey boo xamante ni daal liggéey bu am solo la incha allah xam naa ci biir màggal gi danañ delsiwaat ci ay images yoo xam ne da ngeen gis liggéey boobu niñ ci déroulé ak membre yi niñ ciy taxawee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.